mbokk yi ginnaaw bañ salte yàlla julli ci sayidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam di balu àq ñëpp di baal àq ñëpp di ñaan suñu borom mi nga xam ne mooy borom yërmande tey borom jéggal mu boore nu jéggal te yërëm di ñaan tàllal suñu loxo itam di ko ñaan ci bis bu tedd bii Cheikh Mamadou Mountakha mi nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba suñu borom gën koo jox kattan ak man. akuk tal ba lim yéene defal lislaam te yéene ko ci nit ñi suñ borom jàppale ko ci te ànd ko moom daje ci ngërëmam suñ borom képp koo xam ne itam sa sa tool mooy lislaam ñi ngi lay ñaanal suñ borom kàttanal la jox la ak man jox la ak wér ba la nga yéene def ci lislaam nga def ko te ànd koog ña ngi ko àndal te daje ci ngërëmul suñ borom ginnaaw loolu nag ñu nekkoon di ñu nekkoon di waxtaane ci ajjuma ji weesu ci loo xam ne mënut ñàkk ci dundu doomu aadama ndax dafa doon loo xam ne da koy jàpp ndalal ak dundam dafay doon loo xam ne itam da koy musal ci bakkaar yoo xam ne seq na seq na moom ak boroomam te loola mooy njéggal jéggalu ñu waxoon ne jéggalu day lu am solo la ci dundu jullit ndax doonut loo xam ne day doon da day da koy tàggalee bakkaar ba nga xam ne moom la amoon képp waaye suñu borom da ciy dëli ne képp koo xam ne yaa ngi jéggalu du ma yem ci ba baal la bàkkaar bu waaye na ma la defaree sa àdduna ni may sa àllaaxira ëllëg ni lay defaree sa àdduna tey jii mu doon kon loo xam ne lu munta ñàkk la ndax dafa doon loo xam ne mooy tax ba li ñu të te mun munuñ ci dara lañ ci mën a dimbali mooy suñu borom te loola mooy delluwaat te njëggal mooy delluwaat njëggalu mooy delluwaat ci suñ borom xamal ne ko yow rek la xam ne xamal ne ko ne yow rek yaa man xamal ne ko yow képp yaa am kàttan xamal ko ne itam yow yow ñun ñi ñun de say say jàmm rek lañu boobaa la nga xam ne tënañu te mënuñ ci dara buñ ko waree ne ko yaa fi nekk wan ko ne ko yaa ñu ci yaa ñu yaa ñu ci mënal dara boobaa danañ dina ñëw ak yërmandeem te bu ñëwee ak yërmandeem yërmande ji du yam ci jàpp defal la ak jàppandal ci àdduna si kese waaye da lay defal ci at jàppandal ci àllaaxira ak àdduna si te loolu moo ko waxal boppam yaa yaqub istaghfiru rabbakum innahu kaana ghaffaaran yursil as-samaa'a aleykum midraara wa yumdidkum bi amwaalin wa baniina wa yaj'al lakum jannaatin wa yaj'al lakum anhaara mu mel ni kon jégglu dafa doon loo xam ne lu am solo la ñu waxoon ne nag am na ñetti baat yoo xam ne daanañ ko wax ci ci jumaay Tuubaa mu doon ñetti at ñetti baat yoo xam ne bu ci dafa am cosaan du wér ci biir lislaam muy nañuy tuub nañ sax ci tey tey nañ sax sax sax ci tuub tey saraxe tey balonte ak mu mel ni ñett ñetti baat yooyu bu ci ne am na loo xam ne nañ sax ci sax sax ci tuub tey sàkk sarax tey balonte ak mu mel ni ñetti baat yooyu bu ci ne am na aslu wér ci biir lislaam ndax bu fekkee ne yonent bi sallallahu alayhi wa moo nu xamal ne na ngeen di bari lu ngeen di jégglu ci suñ borom ndax man day mi nga xam ne suñ borom topp ma dara jàpp jàpp ma du ma jàppal dara itam téewut bis bu nekk dinaa jégglu ci boo dinaa jégglu lu ma téeméeri yoon mu mel ni kon li muy tekki mooy dañuy woon rek ne moom day sax dafa saxoon ci njégglu ak tuub waxtu wu nekk kon nag ñun ñi nga xam ne xamuñ lu ñu si xamuñu luy suñ luy suñ bir xamuñu fu ñu jëm xamuñu lu ñu suñ borom dencal ëllëg nañu gën a jéggalu suñ borom gën koo tuubal ndax mooy tax li nga xam ne moom la déele ci ku tuub ma ñu mën caa jot te loola mooy defaru àdduna ak defaru àllaaxira kon yàlla nañu suñ borom gën a jàppal ci jàppaleel boppam ba tuub googee ñu di ko gën a saxal gën a delluwaat ci suñu borom xam ne moom képp mooy ki man ñu jox ko ak xam jox ko li nga xam ne moo moo ko moom ndax xam nañ ne lim moom moom képp moo ca mën dara keneen mënu ca dara kon nag nañuy delloo suñ borom li mu moom ndax bu ëllëg ndax li nga xam ne mënuñ ca dara te moom rek booy ki man lépp bu boo boobee lañ mënu dara mu mën na caa jàppale ba mën caa génn na nga xam ne nañ ci war a génne mu mel ni nag doomu aadama bu nekkee ci àdduna si dafa am ñaar yum sëqal dafa sëq ak suñ borom sëq ak yi ak doomu aadama yi nga xam ne ñoom la bokkoon nekk ci kaw suuf ñi nga ne xam ne ñi nga xam ne ñoom la suñ bor di suñ borom nag la koy tàqaleeg loolee ci lu mu ca def ci lu mu wër ta def mooy muy tuubal suñ borom am na loo xam ne nag ak doomu adama yi nga xam ne ñoom la bokkal nekk ci kaw suuf moom la ko seqal te loola mooy àq yi nga xam ne moom lay def ci ñoom moom lay def te àq yooyee ba ñu ko Sëriñ Tuubaa di leeral dañoo wax ne àq yooyu mënta ñëw ci lu dul ñaari mbir rek benn nga tooñ ko ci alalam wala nga tooñ ko ci ab deram mu ne nag alal yomb na ay mbir ndax benn bu fekkee ne dalaa lebal bor nga toog ba mu yàgg mu yàgg bor ba yàgg nga jàpp ne fàtte na ko wala nga fàtte fàtte lu ko yow fa yow ko na nga xam ne bor boobee war na la ak ak loo ko ñàkk ak loo ak nu mu mën a yàgg yàgg na nga xam ne bor boobee war nga koo delloo boromam. bu dee bu dee itam dangaa ngaa da da ngaa jël alalam te xëy na yëgu ko nga jàpp ne ñàkk a yëgoo gee ba ñàkk la ko laaj tax na nga war ko mën a lekk déedéet na nga xam ne alal jàmbur nga yor te danga ko war a delloo. bu ko defee nag alal jaw jàmbar jooju yi nga xam ne danga ko koo yor te war koo delloo nee na la bu fekkee ne ñaar yi rek mooy ma nekk nga dem delloo ko ko moom mu nekk mu fekk mi ngi dund nga delloo ko ko lu mu yàgg ko alal bu fekkee ne itam nekkul di kuy dund nga xam ne yàlla jëlee na ko fi alal joojee lu yàgg-yàgg delloo ko ña nga xam ne ñoo ko war a donn ndax ñoom ñoo ko moom bu ko defee nag day mel ni loolu boo ko defee wàccew nga ak sa kaw kay nga xam ne moom nga yor yoroon alalam waaye nag bu dee li nga xam ne ab der la nga xam ne da nga koo xas wala danga ko wax wax ju ñaaw wala da nga koo tuumaal ci dara na nga xam ne loolee moom nee na dafa comme suñ borom moo moo ñu xamal ne wala yaxtab baadukum baada a yuhibbu ahadukum an yakula lahma axihi maytan mu mel ni dafa mel ni kon lépp loo xam ne def nga ko ci lu ñaaw ci dërëb jàmbur dafa mel ni yaa ngi lekk jëmm joojee loola nag da nga loolee nga lekk te nga xam ne dëgganul war nga koo jéem a daganal nan nga koy daganale nag mooy bu fekkee ne mi ngi fi nga dem ca moom jéggalu ko ne ko te jërul nga àgg sax fa nga la nga wax wala la nga la la nga tudd ci moom waaye nag ne ko man day am na loo xam ne wax naa ko ci yow te warut loolee nag maa ngi lay jéggalu nga baal ma àq ci loole bu ko defee moom mën na laa jéggal ca loolee nga xam ne moom moom nga séq ak moom bu fekkee ne nag dafa doon ndax doomu aadama day dafa doon koo xam ne dafa soxlawoo ëllëg aw yiw ndax dafa jëm ci kër goo xam ne kër gu fa lay sax yi ëllëg te sax boobee amut amutu ab kon nag képp koo xam ne yaa ngi tukki ci jëm ci barab boo xam ne foofee ngay sax te sax ba amut ab loo doo xeeb dara ndax yëbb loo ci am rek doy la doy ba tax na lépp loo xam ne nag mi ngi koy yaa ngi koy tooñ ab jillit wala tooñ nga ko doomu aadama ci ab deram na nga xam ne loole àq la joo xam ne du la wàcc li fekk jégluwoo ko ko moom may bu ko defee nag bu bu fekkee ne mi moom moom nga koy jéglu waaye bo wute nag alal alal moom bu fa waa ji nekkut mën ngaa dem jég mën ngaa dem mën ngaa dem delloo ko ñi nga xam ne ñoo koy dond waaye àq ji nga xam ne moom nga yaral nit ki nga xam ne moom ci ab deram nga ko wax lu wax ju ñaaw wala nga jëw ko wala nga xas ko wala nga tuddal ko loo xam ne doonu lu rafet àq joojee moom moom moom moom ma nga ko seqal képp nga moo la ko mën a jéggal ba tax na bu fekkee ne nekkul moom waa joojee amoo ca menn pexe mooy def dut xam ne dinaa ko ko fay ëllëg ca fay googee ma koy fay du doon lenn lu dut li baax li ma doon def ci lañuy ñuy jël fay ko ci àq fay ko ci àqam lu baax joojee nag kon nee na li li la war a war mooy nga jéem a góorgóorlu fas yéenee bari bari sa lu baax ndax bu ëllëgee xam nga ne ak am na àq joo xam ne yor nga ko te faaw nga fay ko bu ko defee nag xëy na boo bari lee aw yiw nga mën koo caa fay ndax Sëriñ Tuubaa dadaa wax ne bu leen jox seeni yiw nit ñu baax ñi bu leen gàddu ñaawteef yi ñi nga xam ne itam ay tooñkat lañu nan ngay joxe sa yiw nit ku baax mooy da fekk nit ku baax nekk ca lam war a nekk di góorgóorlu kem talaay kattanam nga di ko tuddal nga di ko waxal dara lu ñaaw na nga xam ne loolee nga ko waxal ci lu ñaaw day cel moom lu baax li nga amoon lépp da koy jël ndax moom maanaam lu moo lu baax sa lu baax la ñuy jël ñi nga xam ne nag ndax moom lu baax la am kon lu baax lu baax rek nga koy mën a jox ki nga xam ne nag xëy na dafa nekk ci la ko la ko war nga di ko tudd ci loo xam ne waroo ko ci tudd di yàq ab deram na nga xam ne moom moom moomay ñaawteef yam am rek ngay gàdd bu ëllëgee te doola li ñu ko won mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamal nañu ne ki perte mooy ki nga xam ne nekkoon na fii ci ëll ci àdduna jàpp ne li mu war a def rek mooy li dox digganteem ak boroom daal nu mu ci man ci rafetal na ko def nay julli nay woor nay natt asaka nay dem màkk bu ko manee nay def lépp loo xam ne lu baax la ci digganteem ak boroomam waaye nag diggante ak nit ñi nag jàpp na ne xëy na dara waru ko ci war a jàpp na ne xëy na lu baax loolee may def dana tax lu mu def ci nit nit ñi suñ borom du ko topp ci loolee yonent bi sallallahu alayhi wasallam xam leen ne nag kookee nga xam ne dafa nekkoon ci àdduna si te jàpp ne li mu war a def mooy bàyyi xel boromam képp waaye doomu aadama yi bàyyi yu leen xel li mu war a seq ak ñoom doxewu ko nam ko war a doxe na xam ne bu ëllëgee loolee nga xam ne moom la leen tooñ ñoom doomu aadama yi nga xam ne ñoom yiw rek lañ bëgg foofee ndax kër la goo xam ne fa la ñuy sax te xamuñ te kon li nga xam ne moom la doon def ci lu yiw dañ koy jël di ko jox ñooñee mu doon tooñ bu demee ba nga xam ne yiw wa jeex na ñuy jël ñaawteef yi ñooñee di ko teg te kon bu demee ba sa saw yu saw yu jeex dese woo lu dut ay ñaawteef ni ko di sëñ Saliou waxe woon rek ne ajjana moom lu bon du fa dugg ajjana lu bon du fa dugg kon kenn kenn du yor lu bon te jàpp ne aj loolu lu bon doole nga yor dana la mën a dugg dugal ajjana kon suñ boroom bi nga xam ne moo mën a jàppalee te mën a dimbalee yàlla na dimbaleel boppam yàlla ñu taxawal boppam ba ñuy xam li nga xam ne moom la ñu war a séq ak suñ borom ñu di ca def suñ képp lay kattan li nga xam ne moom la ñu war a séq ak doomu aadama itam ñu di ko bàyyi xel nañ ko war a bàyyee xel loolu suñ borom mën na ko jàpp donc yàlla nañ ko defal rabbana innana zalamna anfusana wa in lam taxfir lana wa tarhamna lanakunanna min alxaasirin rabbana atina fi dunya xasanatan wa fi l axirati xasanatan wa qina adaba